Ramadan, Ramadan, Ramadan sama gamda faidun Ramadan, Ramadan, Ramadan sama gamda faidun nañu quraan ba ñu dëddu caaxaan géteel suñ bànneexu ba kenn fay ñu kàttan ramadan yow mbër kër géwël yi kër géwël yi xamuñu weeru koor xamuñ dara loolu tëgg rek loolu tëgg rek soo ramadan dafa am àq mbir wi dafa am àq nit nit nit da nga nit nit nit da dafa ndaw surtout weeru koor loolu ratatata ñun ñëpp ñu war a dee noppi bakal Woi, metanya ruan. Yalah Ya Bom. En fait man la Badar pour wax ji baña yak. Badara Badara nga mën a tudd Badara. koñ bi but ba but foo nee Badara xam nañ ma bu baax may garde ci kër gi fii may gardien bi aussi may garde koñ bi man nag bëriwuma wax quoi comme dab lenn laa bëgg parce que man sama wax du bari tarkaala ku la xool nii ngay mel parfum chambre nii. doo gaaw naaj bi dafa tàng ba pay ci kóor lañ nekk damaa war damaa sonn. ni ngay wooree neex na ma macha allah bëgg naa daal ñu génn génn neex daal maanaam ci koñ bi fii ngay ñëw di ma indil ndogu malay seet si yor yoru guddi gi bu ñu ndogoo ba pare. maanaam daal ku nekk toj toj la sa moroom yor daal ñu tojante ay mbir bëgg naa. yomb na de. bëgg naa ñu ànd nga may àndil ndogu ku ma fekk ma génne lu mer euh, madame man ñi ma bëgg bari nañ duma la neexal sax ci relation bi naan la nangul wala nangu bul nangu wala naa ci xalaat man soxlawu ma xalaat je te doxaan léegi il te moo répondre dans le moment waaw dama lay doxaan léegi nga nangu léegi wala nga bañ léegi après nga dem boo bañee nag après yow la. non jaru ko yow gaaw ngaa gis sa bopp non non parce que man damaa xam sama bopp. boo xamee li ngay jar nag doo sonn en fait da ngay nangu ñu ànd neexal. da ngaa may nekk armée nag xam naa xamoo loolu. j'ai fait armée deux ans. génn libéré di def gardiennage parce que gardiennage moom a gën a neex ak sa en plus ñetti rebelle yi ma jotoon rey en en armée kenn ki nekk de sama sama mbokk maam la quoi moo taxoon yooyu daal. affaire yu bari yu ma dund armée après nañ ci gëna yaatal. amul problème. waaw. mu la ko nëbb pourtant boo la gisee ci koñ ba léegi rek ma neex te mais xos naa ñëw di la ko wax mooy loolu. parce que da nga am benn caractère. aussi góor dafay am caractère. waaw ah, mooy du rapax rapax ñii ñu di ko la mhm. da nga am ci sa guddi jaaral sama ñeen fukk ya wad rek dama doon neexal de barki wi ñeen fukk ya mo doon neexal ñeen fukk nga may nit bo nekké ak mom nga bëgg ko do sétol lu mu yorok lu mu yorut xalé jigéen ni ba leen ngeen men graw demal yow kom nga dag ma tik ba demal nit lu mu am ak lu mu amul dang koy bëggé nonu ko waxtane yow tamit ah, da ngay dem dama bok bok hmm ka hmm. jaar mu ya. eh, ah! guddi moom faaw ma jaar ñu toog waxtaan do doo maa interview rek non dañu toog nii après ñu ñu dugg juboo nag mën a yee kiwal kiwal guddi dama daal sama maa ngi xumbule daal waaw baax na waaw nga dem daal bu dul daa yàq sama koor gi ndax maa ngi xumbule merci ma ya ilaha illallah yalla de buy defar day melni kuy yak wax coro mii nek ci kër gi yakar ni mom rek am mol mom rek am tat mom rek ko ñuul mom rek a bakkan ah coro coro coro loru nga ba dara japp na Rihanna Beyoncé nekemenes Mendes oh coro am nga problème fi lay indi sama gel di ko rëcc mais man na xam kenn rek kenn rek moo ma nar a ci sama gel bi kenn rek moo ma ko nar a yàqal te kala naxa dëgg billaahi ñilan ñilaan fa amu nday ñibi ga fa ñibi fa fa am ñibbi village parce que ñilan bu fi nekké man duma mënuma mënumaa baaxle ndax ki bu ñëwé fi ni ñilan fatt na ma di bakata ñilan xéñ na tilim na forox na tankami wéx man xar-xaru teust na mi ñoo may met xam nga ni xalé bu noyé ni ma japp ko rek mu wara a toj sama oh kii ku tojal nga jël barke yonent bi es bi ni koñ bi nag gën naa nday réew am naa gel bu mool fii laay toog lu waaye wax ma dugg. Ramadan Ramadan